سكت الودود من الجبار ليس من الفجار والأبرار الدر والنفع من الوهاب ليس من الأعداء والأحباب من الأعداء والأحباب أول ما ابتدى به القديم تعلق بمن له تقديم أول ما ابتدى به القديم تعلق بمن له تقديم

ناجوا إلى البلاد النائلة laysa min al-fujjaar wal-abraar ad-durr wan-naf'u min al-wahhaab laysa min al-a'daa wal-ahbaab wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh ñu ngi leen nuyu yéen bokk yi ci dégg te di leen baax te di leen ñu ngi fii ci barab bi Touba Dindeye dëkku Cheikh Ahmadou Ndoumbé Mbacké Xaban ñu toog suñu mag suñu kilifa Serigne Ousmane Mbacké mu Serigne Mamadou Mbacké Dindeye di borom xam-xam di gëstukat ñu bëgg a seq moom jotaay bi waxtaan ci histoire dëkk bi ak ki sañc dëkk bi ak li waral li nga xam ne moo waral bis bi tey mooy siyaar bi. ak ak njëriñul siyaara ak ki dugg di siyaara si lu ci mën a jëlee ci teeba kon ñu tataan sëriñ Ousmane Mbacké mu sëriñ Mamour mu leer nañu loolu bisimilah sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare te di leen jaajëfal te di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi bis bu màgg bi di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant bu baax Serigne tubaa di sant sunu buntu ci Serigne Touba te mooy Cheikh Ahmadou Ndoumbé Mbacké yàlla nañu ko yàlla dollee fayal mu mel ne mbokk yi ñëw ngeen ci dëkk bi ñuy wax Dendey Dendey nag dafa bokk ci sanc yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Ndoumbé Mbacké moo ko sanc ci ndigalul sëriñ Touba mu mel ne sax mooy sanc bi nga xam ne moom la mujj a sanc ci kaw suuf ndax mi ngi ko sanc ci 1925 ginnaaw bi mu sancee saam ci 1923 24 25 ci la sanc barab bii di dende yi moom nag bi mu ko sancee defa ko ab dëkkuwaay da ko defoon ay tool la tax mu sanc ko tamit moo taxoon mu sanc mboolem dëkk yi nga xam ne ni moom la jaar te mooy daara ji mu njëkk sanc ci kër Magey Ndaw ci 1896 mooy bi sañ bi demee ci géej gi ba ci déwén si foofu am na fa lu tolloog juróom-ñaari at daa ji dem sanc xaban ci 1904 1904 la fa nekk am fa lu mat fukki at 1914 sëriñ bi woolu ko ne ko moom ak Cheikh Ibrahima faal damaa bëgg ngeen ñëw féete ma ci penku yow Cheikh Ahmadou Ndoumbé nag ma féete ci sama wetu ndeyjoor Cheikh Ibra féete ma ci càmmoñ ci la sanc xujal 1914 waaye ginnaaw benn at mu daal di jëm sam mbampana ci 1915 am fa moom it juróom-ñaari at daaj fay jóge nag ñëw saam 1923 1925 mu sanc dende yi barab yooyu yëpp nag mu sanc jubluwaay bi benn rekk la mooy nekk fa liggéeyal fa lislaam yar njaboot gi ci ak taalibe yar njaboot gi ci lislaam xamal leen seen diine waaye nekk fa nag di liggéey liggéey yoo xamante ni liggéey yu yaatu te lépp lu amee ci liggéey bi mu daal di koy jébbal Serigne Touba noonu la nekk woon kon loolu barab bi sanc bi daal nañ xam ne ay tool la yoo xam ne nii toolu Serigne bi la Cheikh Ahmadou Ndoumbe moo ko sancoon nekk feek njaboot gi nekk feek dongo yi lépp lu mu ci liggéey jox ko Serigne tubaab ba ni nga xam ne Cheikh Mouhamadul Moustapha yor na liggéey bi ci noonu ci la wëyal di ko jox ngir mu di ko def ci liggéeyu jumaa ji ak di ko jox njabootuk Serigne bi. moo tax say suñu wax ne jébbal na mbay ma Moustapha wala mu yefal man jafa moo sopp bàyyi Moustapha ma an nabi Shafii kon ci loolu ci la Cheikh Mouhamadul mi nekkoon ci dëkk bi bi yàlla dogalee nag 1933. Euh, ci la Cheikh Ahmadou Ndumbe wàcc ab liggéey tànn dëkkaale ak boroomam fekk ji sëriñ bi ca Touba eh, yàlla dogal ci sëñ Modou Xabbaan sëñ Ibra Xujja moo ko njëkk a wuutu ginnaaw ay weer lu toll ak juróom-benn weer yu tegal yàlla dogal mu daal dem fekk si ko sëñ Modou xaban jiite liggéey bi booba ma nga nekkoon saam waaye ci ay cinquante 1951 nag ci la ñëw ci dëkk bi def ko nag mu nekk ab dëkk eh, ci la tàmbali nag mbooloo mi di fi ñëw ba mu tey ngeen gis ko nii mu nekk ab dëkk waaye nag dara soppikuwul ci woon mooy liggéey jox Serigne Touba ndax loolu la cay tegtal rek magasin boobu xëy na du ñàkk ngeen gis ko muy magasin bu mag mag wax nañu ne ci jamono sëñ Modou Xabbaan duy na ko ba mu fees dell xëy na tollutoon ne sax ba mu fees dell ak gerte sëñ Fall la ñëw mu jël lépp jox ko ko sëñ Fall na ko yokk rek yokkal waaye yokk day yokk rek ci la ko yokki noonu boo demee da nga gis fa yokk bi nekk ci déwén sa wax na ne dañ ko duy ba mu fees ba nga xam ne dañoo mujj sax génne euh, ci biti euh, gerte gi noonu nag mooy dox ba léegi ne ko ba ni sëriñ Maam Moor ñëwee eh, ci wuto sëñ Mudu Xaban ci dëkk bii nga xamante ne ni mooy Dendey ba ni ni fi sëñ Ibra Kujja nekk nii tey nekk Seex ma Mandumbe nekk sëñ Mudu Xaban amul lu mas a soppiku ci doxin woowu mooy jaamu yàlla liggéey yar njaboot gi tey lépp lu ñu am tamit jox ko sëriñ Touba loolu daal mooy li nga xam ne mooy histoire dëkk bi ci gàttal mu mel ne nag ñëw nañ fi ngir ab bis muy li ñu tuddee ziyaare ziyaare nag buñ ko waxee xëy na ñu bari dañuy dégg rek ziyaare Dendey bi kon dana baa jaadu ñu ñëwee mbooloo mi teew mu mel ni xëy na suñu kàddu na am ñu ko dégg dañoon soxla woo xam lan moo waral ziyaare bii nga xam ne ñu koy ziyaare ak xëy na ngëneel li nga xam ne am na ci eh, bis bi muy ziyaare li ko waral rek lenn la booy xool mooy li ñuy tudde ak cofeel akuk bëgg ci nit ki ci ab sëriñam ndax dañu wax ne ziyaare nit ki boo ko bëggee la koy tegtalee dangay dem ziyaare ko zur man tuhibbu wa in shattat bi daaru nee na na ngay ziyaare ki nga bëgg donte sore na sax waxaat ne waxaale min dunihi sahlun aw aaru diggante bi lu ci nekk moo xam ay xur la moo xam ay montagne la ba mu la teye nga dem di ko ziyaare waaw daa wax ne nag laa yamnaannaka bu'dun min ziyaaratihi inna al muhibba liman yahwaahu zawaaru nee na yi bum tax mukk nga dem ne ne du ma siyaara ji ndax dañu wax ne innal muhibba liman yahwaahu zawaaru nee na ki bëgg day siyaara ji ka mu bëgg cofeel googu nag la taalibe yi am ci jëmmi Seex ma Manumbe am ko ci jëmmi Sëriñ Tubaa ndax Sëriñ Tubaa dafay koo xam ne loo ko lebal loola lay fay xam nga sëriñ bi cofeelam dafa wéroon ci yonant bi dem ba bëggatul lenn lu muy yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom rek lañ koy màndargaal bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxoon na mu joxe boppam taxoon na mu joxe alalam taxoon na mu joxe njabootam lépp ngir bëgg yonent bi loola nag sëñ Mandoumbe dafa mel ne dafa ñëw sëñ tubaa fayee ko taalibe sëñ tubaa maanaam sëñ tubaa yàlla daa fayee la mu defoon yonent bi loolu la ko fayee ci taalibe yi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo am ak cofeel ak bëgg ci sëriñ bi ma du mii nag li sëñ Musaa Ka wax rek dafa wax ne ko jaaraama Cheikhu Ahmadu yaa sopp bamba ahmadu nem soppi yónneen xaamidu cofeel ga wér na yàgg na kon cofeel googu nag moo tax sëñ Mouhamadul Amine Gaye dem jumoo yi mi ngi wax ne moom sëñ Mandoumbe dafa mel ne joxe na bakkanam joxe na dooleem joxe na alalam joxe na njabootam ngir jote ko sëriñ tubaa xaadimu rasul ak lépp lu yëkkati ab liggéeyam na ko sangam bu tedd ba sëñ tubaa defoon yoon te bi ne sëñ Madu defalaatu na ko kon seede yooyu ña nekkoon ak moom ñoo ko ko seedal muy cofeel googu loola nag la ko sëriñ bi fayee taalib yi nga xam ne boole na ko ak ñoom ñoom it ñu am cofeel googu ak bëgg googu ci moom loola moo tax ñu ñëw nag di nemmiku dëkk bi di nemmiku jeexitu dëkk bi di nemmiku tamit njabootam gi nga xam ne ñoo fi nekk mu mel ne loolu ci jamono yi jamonoy sëriñ Maam Mor Dendey la woon yàlla nañu ko yàlla doo doolee fayal te yokk ay leeram euh, xëy na jamono booba buñ masaa tabaski wala ñu kori ba ci ñii dañuy ñëw ci ngoon gi ñii bu ci suba ga ñii ba ca ginnaaw suba ga mu gis ne luy boolee tak moo gën luy tàqale ndax dañoo war a comme kenn ku ci nekk li la yëkkati lenn la mooy sëriñ bi ak bëgg ak sëriñ bi kon war nañoo fexe ba boole ko mu nekk benn ndax kat sëñ Abdoul sëñ Abdoul Ahad Mbacke waxoon na ne képp kuy liggéeyal sëriñ tubaa ci luy dajale mbooloo gi wala képp kuy dajale mbooloo soo ko yëgee ak yoo ko yëgu xamal ne yaa ngi liggéeyal sëriñ tubaa ndax sëñ tubaa moo wax ne yaa rabbi jaalil muridina maa fi xisnaka alxasini wa chamlaj maha mooy na nga boole mbooloo mi kon liggéeyal sëriñ Tuubaa bokk na ci mooy liggéey luy dajale mbooloo mi ci la nag wax ne kon nañu fexe ba ñii di ñëw bis sàngam ñii ñëw bis sàngam ñu def ko lépp muy benn bis ñu tànnoon ko ci bu buñ tabaskee ba ci juróomi fan ñëpp daje fi muy benn ziyaare général boo xam ñëpp dañuy daje kon loolu mooy li ko waraloon ñu dem ba ci jamono ji nag xëy na ci nawet bi ak tamit xëy na bëgg yërmande ci nit ñi sëñ Ibra daal di koy toxal ci fii nga xamante ni ci lañu nekk yàlla na sunu borom yàggal ko fi ci kanamu njaboot gi kon loolu mooy li waral siyaare bi ak cofeel ko lal ak bëgg ko lal ci njaboot li waral daje bi tamit mooy bëgg luy boole rek loolu moo tax ñu def ko mu nekk benn bis ngëneelu siyaare nag bu ñu ko wax moom yaatu na yaatuwaay ndax nit ki ci siyaare mën na cee amee lu ne suñu waxee àjjana rek doy na suñu waxee ne cofeelug yàlla maanaam nit ki mën na ci am làq cofeelug suñu borom ndax suñu borom moo wax ne wajabat ma ci ci ci xadisul qudsi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali ne yàlla suñu borom moo wax ne lil mutaxaabina fiya wal mutajaalisiina fiya wal na fiya yàlla nee na man warlu naa sama bëgg sama cofeel samag sopp ci ñi nga xam ne dañoo bëggante tam a tax dañuy toog di nemmikonte di waxtaan tama tax waaye dañu jug di siyaarante te sama jëmm rek a tax te xam na ne siyaare bi yàlla rek ko waral sëriñ bi rek ko waral kon day mel ni ku ci ñëw war ngaa rafet njort ci ne yàlla bëgg na la ndax liy tegtale mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn bis muy nettali ne am na ci jamono de koo xam ne dafa jógoon di siyaare si mbokkam ci ab dëkk nee na mala yàlla yebal malaaka mu taxaw ci yoon wi di mel ne lu koy xaar ba ñëw mu ne ko yor melu doomu aadama ne ko foo jëm mu ne ko damaa jëm ci dëkk sàngam mu ne ko loo fa yutu mu ne ko xanaa ngir siyaare sama mbokk rek mu ne ko ndax dafa am lum la yoreel intérêt bu mu la war a mu ne ko déedéet dama koy siyaar rek te yàlla tax ndax dama ko bëgg te yàlla tax mu ne ko man ndawul yàlla laa anna allaha qad ahabbaka kama ahbabta yàlla nee na bëgg na la ni nga ko bëggee ba tax nga jóg di ko siyaara ji kon jóg googu ngir mu jóg di siyaare mbokkam ci la am cofeelu ak bëggug yàlla kon nag ñun nañ rafet njortu ci ne nañu ci yàlla nañu ci yàlla defal loolu làqaluñu ci loolu te am nañ ci rafet njortu ndax tamit boo xoolee sëriñ bi li mu wax ci ko siyaare ji loolu day dellu si lii rek ndax nee na képp ku ma siyaare ji na nga ko muusal na nga ko jéggal wa kullu man xadamani aw saara fa najjihi waxfir lahu aw saara ku ma liggéeyal wala nga siyaara ma sunu borom defal ko njéggal defal ko mucc loolu rek la ñu soxla te loolu tamit inna alladina ila sarsaara qad xasadu siyaarati faaraqu daarayna aw saara ñi jóg di ma siyaare si ci sarsaara adduna ak alaxira yow sunu borom nag den def ñu tàqali ko ak bàkkaar loolu mooy set wicc ci bàkkaar te loolu mooy xol bu set te yawma laa yanfau maalun illa man ata allaha bi qalbin salim kon xam ne ne kat kon loola dana tax am àjjana dana am tax yàlla yàlla sunu borom bëgg la moo tax sëñ Mbay Jaxate di wax ne ba tey ku ma jóg di ma siyaare yow yàlla defal ko lii mu wax ne képp ku képp ku séq ku séq jéego bis jëmee ci man ngir bëgg a gis saa jëmm ji ak bëgg a gis samay bayit na sébbalu ceebu nga nee la ngërëm ak wërsëg ak mucc ki ndam ak barke ak wér-gi-yaram daal ne ay dal na kuy jommalu muy kuy jombalu siyaara daane kuy jombaloo siyaare nit doo gis mu am la muy mébét bul jombaloo siyaare nit siyaare day tax a fulu mooy siyaare dana tax a yokk dana taxa am tamit li nga bëgg moo tax sëñ Fallu waxoon na ba muy tagg maam siyaare dana ko is bi ziyaarati talqa kulla makrumatin nee na ci ziyaara da ci am lépp luy teraanga lépp luy ngëneel mën nga ko am ci ziyaare daane wayanta fii bi liqaa'i fa wal aaru daje ga ngay dajeeg sëriñ ba daje ga ngay dajeeg sa soppe ba loola mën nga cee tàggoog ñakk mën nga cee tàggoog gàcce àdduna ak kon siyaare mën na lii tey nag xool bu la sëriñ bi di xool ngir cofeel rek mën nga ci am lu mbëgg bi nazaratin tuxniika mawlaaka biha anil kadd maanaam lépp loo waroon am ci coono benn xoolub cofeel bi ci sëriñ bi rek mën naa am nga amee ci la nga bëgg ci àdduna ak alaaxira ndax yàlla dafa yaatu te mën a maye kon nag ñoo ngi ñaan ñi fi ñëw ñëpp daal ah yàlla na leen yàlla defal loolu nga xam ne nekk na ci yoolub siyaare ñun ñëpp yàlla nañu ko am yàlla nañu am cofeeluk suñu borom gum ñu bëgg yàlla nañ ci am aljana yàlla nañ ci am texek àdduna texek alaaxira lépp